ñaata bal nga ñaata bii Mbappé yaa yàq match bi Mbappé yaa yàq match bi doon dégage Real bugg la waaye Mbappé fitse yàq nga ndeyu lii waay dige yëpp yaa ko yàq ku ñàkk yow la Mbappé yaa umu dellul Paris xamoo gat ñaata yoon nga rate bal bi ñaata yoon cinq fois six fois ñu lay jox ay passe yu baax nga koy rate man di ma gën a metti ba metti ba mooy professionnel bu tànn yow orzo xàmmewoo ko traité bu weex bi fi mu nekk xamoo 18 yi da ngay naaw rek dugg ci orzo yi lëfal ndayu Mbappé waaye ak kenn kuy faral Mbappé da jaw ndayu waay waay damay kattu